cas issu de la transmission communautaire identifiée à Niaritali. 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 823 cas ont été déclarés positifs, dont 296 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 517 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle surtout au niveau des couches vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes avec comorbidité, c'est-à-dire souffrant de pathologies quelconques telles que le diabète, les problèmes tensionnels, l'insuffisance rénale aiguë, de même également que les maladies sanguines telles que la drépanocytose. Je vous remercie li nga xam ne moom la ñu am tey fii ci Sénégal ci mas mii ñu tuddee Covid 19 ci talaata tey bii ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l' action sociale jot na résultat yii ma leen di bëgg a jox ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett test yi nga xam ne def nañ ko. juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañu wax ne juróom-ñett fukk yi ak juróom-benn moom lañuy wax contact moom lañuy ñuy saytu di leen topp ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi mun nañu rek wax leen ne ki nga xamante ne moom moo am tey doomu jàngoro ji fii ci Sédhiou dem na ba wàll ñaar fukk ak juróom. loolu mooy wane ne wàllante mbas mii ñuy wax Covid 19 da ko gaaw lool am na benn boo xamante ne moom la wax kaa communautaire mooy bi nga xamante ne kenn xamul ku ko ko wàll te may fàttaliwaat ne moom mooy tax mbas mi di law nu mu gën a gaawee ñu ko gis fii ci dakaar ci bërëb bi ñu naan ñaari tali ci malaat yi nga xamante ñu ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi. fukk ak ñaar ci ñoom bi ñu leen saytoo gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñaari cas grave ñu ngi tëdd ci service réanimation yi ci fi ñuy wax hôpital fan ak hôpital principal ñeneen ñi nga xamante ñoo fa des di malade seen wér-gu-yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir senegal ba léegi ñu ngi natt juróom-ñett fukk ak euh, ñaar fukk ak ñett yoo xamante ne dañu ànd ak doomu jàngor ji ci yooyu. ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn wër nañu juróom-ñeent faatu nañu benn delloo nañ ko ci dëkk bi nga xamante ne fa la jóge woon ci li des fii ñu ngi tollu ci juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ministère de la santé de l'action sociale mu ngi doolee di ñaax askan wi ngir ñu gën a farloo dig yi ngeen xamante jox leen leen ko loolu mooy tere mbas mi wal kenn du ko fi yoreeti ci digtal yooyu ñu ne nañ ci gën a seetlu di topp ñi nga xamante ne moom lañuy wax couche vulnérable maanaam xale yu ndaw yi suñu mag ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñun jigéenu warul yi mais également ñuy gën di xool di saytu ñi nga xamante ne dañuy dox ak doomu jàngoro dañuy dox ak feebar feebar yooyu nag gën nañ cee gis ñi am jabet ñi nga xam ne dañoo am problème mu tension moo xam tension bi yéeg wala tension bi wàcc mais également ñi nga xam ne dañu am insuffisance naa aiguë ba leen di yóbbu dialyse mais wax nañ tamit ne ñu gën a xool tamit ñi nga xamante ne dañoo ànd ak li ñuy wax feebar deret rawatina li ñuy wax drépanocytose maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. docteur euh, Marie euh,